الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk jullit yi ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk ngeen ragal yàlla di seede ne yàlla moomu kenn yeewul ñu koy jaama ku dul moom moo yónni woon ci ñun ab yonentam ngir mu ñuy teete war ñu fan la ngërëmal yàlla nekk ca jaamu googu ñu koy jaamu yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ña koy roy ba ila yawmi diin mbokk jullit dafa am benn ca jigéeni saxaaba ya ñu koy tudd umu hisham mu ne man dey lii nga xam ne mooy suuratu qaaf kenn jàngaluma ko man ka mokkale ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax la nga xam ne da ko daan jàng ca koo min baram ba waxtu wu daan xutba doomu aadama yi loolee mbokk day wone ne war na lool ñi nga xam ne ñooy imaam yi di baril di jàngale suuratu qaaf comme naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defee saar woowu nga xam ne ëmb na cosaanu doomu aadama ëmb dundinam ëmb deeyam ëmb nekkaayam ci barzaq ëmb keroog bañ koy yàlla di atte ëmb fan lay mujj àjjana wala sawara woote ca kawteef yàlla def ci kaw asamaan ak suuf loolee mbokk mooy la gën a màgg ci jubluwaay ab xutba saar la boo xam ne borom banque ubbee ci waat ci téeréem bu màgg bi nga xam ne jullit ñi dañ koo war a màggal muy alquran ku ko màggal yàlla màggal la ku ko ittewoo yàlla jubal la ku ko wan gannaaw yàlla réeral la muy tontu yéeféer yi nga xam ne ñoom ñaari kawtéef nekkoon na ci ñoom kawtéef bu njëkk bi mooy nit di ñëw ak ñoom di wax ak ñoom naan leen yàlla ma yónni te yàlla mi ngi ci kaw asamaan yi loolu nan la mën a nekke ñaareel bi mooy nit kooku lan la leen di wax mooy bu ngeen dee dañ leen di dekkal encore loolee nekk beneen kawtéef boo xam ne bu mu leen yéem tey jii ñuy dund boo boo xooloon ñuy dund ci kaw suuf daanaka deux tiers ba yépp gëmuñu alaxira am na borom bi nag subhanahu wa taala dañuy wax ne waaw xanaa ñuy weddi kattanu yàlla ci alaxira xanaa ñoom xooluñu asamaan bi naka laa ko yëkkatee naka laa ko taarale ci ay jant ak weer ak bidiw buñ ko xool ba gis ci lenn lu jeng mun a xanaa gisuñu suuf si ni ma leen ko tallalee sampal leen ci ay montagne xanaa seetluwuñu ni ma wàccee ndox kaw asamaan génneel leen ci bépp façon meññeent ak fruit boo xam ne nii ñoom ñi nga xam ne ñi ngi nekk di ko lekk waaye suñu borom yàlla mu ne def na ko muy xalaatiin layu leer ñeel képp koo xam ne nii day dellu ci yàlla ca mbokk doomu aadama yàlla gisuloo ko waaye bokk na ngay xam màggaayu yàlla xam lan mooy asamaan bi la tiim jant bi nga xam ne wallahi mbokk daf ñoo jege lool lool lool buñ koy méngil ak biddiw yi def ëpp na suñu suuf si loo xam ne jege na cent cinq cent nangam millions de fois yoo xam ne ëpp na ko suuf si et pourtant day buñ ko doon méngale yeneen biddiw ya du doon sax lu ñuy wax biddiw yooyu nga xam ne ay milliards la ñu soree kenn mënu koo méngale nan la ëpp suuf si loolu mooy ci kattanu yàlla waaye ci xereñeem nga xool asamaan ba gën a kawe ba baa nga yegg si sa bopp xool ni la yàlla bindee da ngay xam ne bokk suñu borom mooy borom kattan gi mooy borom xereñe gi borom boobu nag subhanahu wa taala ca la waxee ne doomu aadama man yàlla maa ko bind te xam naa la nga xam ne bakkanam da ko koy xiirtal maa ko gën a jege la nga xamee ne nii mooy buumu xolom nga ca mbokk loolu suñu borom yàlla mu wax tey jii da ngay gis ni suñu borom yàlla may nañu ay portable yoo xamee ne nii na doon central ya nga xam ne fa nga abonné amul loo ciy wax lu dul loolee ñoom ñoo koy capté ñoo koy transmettre te ñu ngi la te ñu ngi koy denc heure bu problème amee mën nañ laa génne li nga wax ci weer wi yépp loolu doomu aadama ko mujj man suñu borom yàlla nag subhanahu wa taala ne man maa gën a jege samay jaam waaye ndax yàlla daa doy loo loolu déedéet lan la def mooy dala wàcceel ñaari malaaka yoo xam ne ñi ngi ànd ak yow di wuutante ñaar ci suba ñu dem yeneen ñaar wàcc borom bi mu ne amul lenn looy wax lu dul am na ñu pare ngir jël wax jooje mbokk ci loolu la ñuy dund dala waaye xam leen ñun ñëpp góor ak jigéen amul kenn ci ñun lu dul ñaari page dana yéeg kaw asamaan bés bu nekk li nga liggéey diggante fajar ba tàkkusaan ak li nga liggéey diggante tàkkusaan ba fajar jot lépp ma ngay dellu ci borom ba ñu la koy enregistrel ci téere boo xam ne nii mi ngi nekk di la xaar borom boobu subhanahu wa taala ne noonu la doomu aadama di ñëwee ba baa sukuraat daal di koy dikkal ci dëgg mbokk sukuraat mooy indi dëgg doomu aadama yi bëri xamuñu ne ci fo lañ nekk ak caaxaan te mooy lépp loo nekk ci dug jaamu yàlla neen la am maa nag sukuraat bu ñëwee te la lay xamal nag lan moo nekk waroon a nekk sa waru gar jaa sakratul mawti bil xaq borom bi nee ne lii nga nekkoon di ko daw te mu nekk loo xam ne ni kenn mënu koo daw suñu borom yàlla subhanahu wa taala mi nga xamee ne nii mooy won ay kawteef ci ay jaamam indil ñu président bu mag kër di Erdogan mi ngi noonu yàlla na yàlla sàmm ko mu ñëw ba fii ci Sénégal yàlla bàyyi ba ndaje mu gën a màgg bañ fa doon woote mu jël ka nga xam ne mooy chef sécurité président turc crise cardiaque mu dee fii ci Sénégal loolee benn misaal la pour yéen sénégalais yi ki nga xam ne waxuma sécurité la waaye chef de sécurité président bu mel ne Erdogan nga xam ne européen ñépp ko noonu. ki nga xam ne moo yor sécurité am suñu borom yàlla jël ko ci jëlin bu gaaw ci crise cardiaque ci tukki boo xam ne xalaatu ko woon moo tax borom bi ne lii ngeen nekk di ko moytu daw hôpital yaag naan comprimé yaag lu mu mën a doon moytu dee ci dee moom mënoo koo moytu borom bi subhanahu wa taala nee na nag bis boo deeyee dana am bis suñu borom yàlla sant malaaka yi ñu daal di ëf te béjjën bu mag boobee nga xam ne moo gën a yaatu asamaan ak suuf doomu aadama bu nekk jën bul xalaat ñëpp xalaatal ci bopp mi ngi noonu man danaa génn suma bàmmeel yaramu neen lay def yéen yaramu neen ngeen di def ku génn yaa ngi fekk ñaari malaaka ñu ngi lay xaar kii moo yor sa dossier keneen ki mi ngi nekk ngir seede ñoo teete la ba ci sa kanamu borom jàll waala soo xoolee doo gis ndey doo gis bàyyi doo gis sëriñ doo gis xarit doo gis kenn yow dong ak yàlla ak i malaakaam su ko defee malaaka bi ne ko ah borom bi haza ma ladayya atid sa jaam bii day lii la doon liggéey ci kaw suuf mbokk liggéey boobu ku ne ci ñun war koo bàyyi xel tey jii da ngay gis benn waay dañ koo convoqué tribunal léeg-léeg fu ne dana ko publicité man day convoqué nañ ma tribunal heure bu ci xelam demee dina la guddi tribunal lu mu la mënal la gën a màgg mooy nañ la rey buñ la rey après jeex na ñëppay day amma tribunalu borom boobee nga nar a taxaw mooy tribunal boo xam ne imma nga jóge fa ñu escorte la yóbbu la aljanna xaalidina fiha abadan yal na yàlla boole ñu ca wala ñu jëlee la fa yóbbu la sawara xaalidina fiha looloo tax ba loolu du aji tiitlu lii mooy la nga xamee ne nii moom la la la wàcc su dee jàmba jaarul woon fa neex yàlla borom bi subhanahu wa taala ne jàppal leen ma képp ko weddi woon samay aaya wala woon ak dëgër bopp sànni leen ko ci mbugal mi gën a tor su ko defee jàppal leen ma ka nga xam ne mooy seytaani jinne bi nga xam ne moom la àndaloon ngeen boole ko ak moom ndax yowmal qiyaama nit ak jinne yëpp lu yàlla di àtte su ko defee seytaani jinne ba dana wax ay yàlla du man maa ko sànkoon moom rek moo nekkoon ci réer gu mag nit ko it naan yàlla kii moom a doon xiirtal lu bon borom bi mu ne bu leen dàgga seen def yi samay wax du soppeeku te du ma tooñ ay jaam ngalla waaye jullit ñi dégg leen loolu maa yubaddalul xawlu la day samay wax du soppeeku li ñu yàlla wax ci alquran du soppeeku boo ko xoolee ak li ngeen di dégg seen rajo yi ak seen télévision yi ak seen gammo yi ak seen daje yi dafa mel ne penku ak soow li yàlla waxoon lépp jàggati nañ ko am na ñeneen ñoo xam ne muñ demee alaxira ñooy taxaw na yàlla defal lii defal lii ñoo am seeni ajjana ñoo am ay texe loolu mbokk suñuy léeb la ak suñuy caaxaan la li yàlla wax ci téeréb yàlla bi mooy dëgg allaaxira yàlla doog na fay àtte amul ku muy teral lu dul koo xam ne daa dëpp woon ak i ndigalam donte ne du tooñ benn jaam borom bi subhanahu wa taala ne sànni leen ma ko foofee gannaaw ba da ngay gis ni daañu laaj sa wara ma sa wara ndax fees nga borom sa wara ne ndax yàlla am na lu ñu may dolli borom bi ne dolli leen ba baa sa wara fees ci kattanu yàlla mbokk yonent bi alayhi salaam nee na junni nit yu mas a wat ci kaw suuf ah juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti yépp cëru sawara lañu kenn muy mucc ci junni yu nekk loolee di war a tiitloo képp koo xam ne am na xol gannaaw ba nag suñu borom ne daañu jege sel ajjana ñeel ñan ndax waa makka ndax ñu weex ne lu ñuul laa daan jegeel ajjana lil muttaqiin ñeel ñi ragaloon yàlla xam yàlla wéetal ko bokkaale wuñ ko topp ay ndigalam bàyyi ay tere ay waaye dem leen dugg àjjana ci jàmm bi salaam bis ni ki tey feebar amatul jàq amatul jaaxle amatul dee amul problème du am du ngeen nelaw du ngeen màgget amul lenn loo xam ne ni lu leen di perturbé la lii mooy bisu sax ba faww bi borom boobu subhanahu wa taala ne lépp lu ngeen bëgg ci àjjana mi ngi foofee loo xalaat ci àjjana mi ngi foofu ba boo demee da fa fekk loo musul xalaat mbokk àjjana la fa nekk yonent bi nee na bët musu koo gis nopp musu koo dégg doomu aadama mënul imaginer ba imaginer àjjana dem gis rek la wala day naa mazid borom bi nag subhanahu wa taala ne ee yéen ñuy dund ci kaw suuf ana ñaata la alak ci ñoo xam ne ñoo leen fi jiitu woon ana qawmu nuux ana waa aat waa samuud firawna ki pyramitam ñoo ñi nga xam ne doxoon nañ ci kaw suuf waaye kenn rëccul ñoom ñëpp tey ñu ngi ci biir suuf ay yéen bokk julit ñun ñi nekk fii balaa yàgg ñun ñëpp ñu dellu ci biir suuf loola tax ka xellu ci ñun mooy ka nga xamee ne nii moom mooy delluwaat ci boromam subhanahu wa taala borom boobu nii lii day mooy sama fàttali jagleel naa ko képp koo xam ne nii ab xolam mi ngi dund wala muy déglu kaddu ànd ak di ko teewlu di ko settantal ca loolu it mbokk muy alquranul karim yow julit fexeel gëm sa téere borom settantal ko lan la la settantal bi di jëriñ mooy lañ ca war a gëm nga gëm ko lañ ca war a jëfe nga jëfe ko lañ ca war a bàyyi nga bàyyi ko lii dong la settantal alquran di jëriñ borom boobu nag subhanahu wa taala ne yow yonent bi xam naa ne saboote yi ñu lay saboote métti na lool yow julit bi liñ lay saboote métti na lool waaye muñal liñ lay wax fasbir ala ma yaquluun ka nga sax ci sabbal sa boroom ci suba ak ngoon loolee ngeen bañ ko bàyyi xel saxal leen la nga xam ne mooy waxtu julli juróom saxal leen la nga xam ne mooy seen askar ya ngeen di zikkar suba ak ngoon te xam ne bis mi ngi ñëw day mooy bis boo xamee ne nii aji woote ba dana woote ay nit ñi génn leen seen bàmmeel yi jëm ci seen boroom ba këroogee lañ nit ñëpp di dajaloo na doon dañ laa suul Angleterre wala ñu suul la Japon wala ñu suul la fu ñu mën a doon loolu amul solo suñu borom danañu dajale la am solo mooy lan nga yóbbaale ba ngay dee amma fuñ la mën a suul amul solo suñu borom mën a zalika hashrun alayna yasir yéen ñëpp lay dajale ku nekk duñ ko attee lu dul loo xamee ne nii mooy samay jëf mooy mooy lam jëfoon borom boobu nag subhanahu wa taala daa di ne ay yow yonent bi mi ngi noonu saxal di sabbal sa borom foo mën a toll te it saxal di waar jaam yi ca la nga xam ne mooy téere bu tedd bi ñeel képp ko ragal fa zakkir bil quran man yaxaafu waayit waaril ci alquran ku ragal tukku yàlla yi mbokk lii ma leen wax ci xutba bi yépp benn saar la ci saaru alquran du ay xadis du ay nettali alquran mi ngi nii képp koo xam ne nii nangu na cee tënku wooru borom boobu moo ko garantil texeg adduna texeg alaxira beneen yoon bu la nit mën a woo mu safaanoog la nga xam ne moo yoonug alquran doo ci texe adduna doo ci texe alaxira yal nañu yàlla boole ci ñi gëm ay aayaam di settantale ay aayaam di topp ay aayaam di moytu la nga xam ne ni mooy ay ay ay ay la nga xam ne mooy ay bakkaar yam yam tëral yal na yàlla defal ñu mujj gu rafet yal nañu xisaab xisaab bu yomb yal nañu jéggal keroog ba ñuy xisaab ca kanamam yal nañu defal ajjana muy nekk suñu wàccuwaay yal nañu yàlla musal ci sax sawara yal nañu yàlla musal ci jaar sawara yal nañu yàlla wayefal suñu sukuraat bis bu ñuy sukuraat yal nañu yàlla wayefalal yal nañu yàlla fegal lii di mbugalum bàmmeel yal na yàlla leeral bàmmeel yi ci ci ñun yaatal ko yaatal ko ci mboolem jullit yi nga xam ne dañoo jiitu yaatal ko ci njaboot gi war a ñëw bi ila yawmi diin te ñun ñëpp mu dajale ñu ca firdawsil aala allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin